ma ci برحمة ربك بمجنون soxna maam Awa xam naa damay dikk ak yow ci beneen laaj soxna maam Awa yaa ngi ci daara ku ne xam na ne jigéen ak góor bokkul lay sa zakaru kal unsa jigéen ak ni mu fragile nga xam ne dina toog benn moment faw mu gàtteñ lu ci xeet sax jaamu yàlla am ndax li koy arrivé kon moo góor bokkunu yéen ak jafe-jafe yooyu yëpp nan ngeen di fexe waaw lan nga yaakaar ne mënees naa boole njàngum alxuraan ak njàng bind ñu àndandoo ndax lu mën a nekk la su mën a nekk it jafe-jafe yi ci nekk te ngeen di ko dund yéen en tant que ñuy jàngal li nga wax lu am solo la de delluwaat ci rek li sëriñ Moustapha Diom dara wax sànq bi nga ko laajee na ko lan moo tax mbind mi amatul ni mu daan amee njëkk ba loolu mooy yàkkamti gi nga xam ne léegi dañ ko yàkkamti xale bi ba bëgg rek mu daal di jaar ci alxuraan ji daal di gaaw mokkal daal dem dem defi leneen waaw parent boo gis tey nii day xool naan ndax sama doom sax léeg-léeg ñu ne sama sax ndax wàcc na duñ ko fa sax bàyyi ba muy mokkal alxuraan ndax wàcc na la ñuy wax defe nañu ne wàcc daal moom mooy nga pare ci alxuraan ji ngir bëgg ko yóbbu feneen foo xam dafay jàngee mbirum àdduna loolu tam la ci ci ci ci loolu waaye bu bu dee man expérience bi nga xam ne man dund naa ko fee nga xam ne xëy na ay ay jigéen rek ñoo fa nekk te xëy na duñu yàkkamtee noonu tamit bu ñu fa duggee euh, dinañ fa toog lu mat juróom benn ak juróom ñaar ak lu topp sogo sogo dem euh, defe naa ne euh, ni ñu war a def ba solutionné lu mel noonu ni ko sëñ Moustapha waxee mooy xale bu commencé jàng rek commencé di bind waaw lu mu jàng rek na ko daal di bind na ko daal di bind xëy na wax na ci wàllu àllo ji ak daaji fii ñu agsi ni tey ci concours bi ni tey li ci ëpp solo mooy bind ci àll wo ak daa mooy tax am àgg fenn fii nga xam ne fi lañ agsi woon tey waaye nag du dàqoog yow mi nga xam yaa ngi commencé jàngal xale bi nga fexe ba moyen boo mën def rek ba mu commencé bind lu mu jàng bind ko rek nga di ko def foofu la njëkk a commencé su ko defee xëy na bu fekkee xale bi moom teel naa dugg ci alxuraan ji léegi juróom at la ñuy jël juróom at kooku bu àndeek noonu commencé jàng di bind lu mu jàng bind ko lu mu jàng bind ko xëy na ak mokkal gi léegi ni muy gaawee xam da gis ko xam ne ñetti at lay mokkal alxuraan ñeenti at la mu fa toog noonu day tey bind te respecté mbind ma defe naa lu mu ca dolli rek dina war a mën a am fu mu àgg fenn fi su fekkee ay waajuram teeluñu ko soxla mën naa dem a dem ba nga xam dina war a mën àgg fi ñuy beqe bind te ñun am nañ lu mel noonu xam ne bu ñu jàngee teel a mokkal danañ def ñetti at mbind mi boole ko njàngom diine te danañ ci am résultat gis koo xam dana fi bàyyi ab kaamil macha allah bind ko bàyyi ko fi soog a dem kon loolu tam lu ma lu war a a nekk la euh, tey tamit dafa doon loo xam ne munta a ñàkk mënut ñàkk ci ci ci liggéey bi ndax dama leen wax ne euh, jigéen ci wàllu njàng mi wax naa ko si Moustapha Diop ba tàyyi ndax ñoom dañoo am commission boo xam dañuy ñëw ca Porokhane di seet si njàng mi ci ndigal sëñ Mouhamadou Mountakha nee na leen jigéen moo gën a gaaw moo ko alxuraan waaw te loolu moom dama ko xam bu wér boo boole moo góor ñu jàng ku jigéen ki mooy njëkk mooy mooy mooy gën a gaaw a mokkal alxuraan xëy na suñu borom moo ko def ci moom mooy njëkk a fàtte nag waaye mooy njëkk a mokkal alxuraan loolu moom lu ñu lu ñu ñu seetlu la seetlu bu xóota xóot boo xam ne moo tax ñu ñu sañ ko di ko wax ci kanam mbooloo kon defe naa ne wàllu mbind moom tamit ku ko ci teg ci woon taxawu ko dina ci am waa ne jonge goo xam dina ci def loo xam ne la la góor ñi dana dana ci mën a àgg foofu kon li des rek mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, joxe seen doom ci daara ñu am tuuti ak euh, dal maanaam nit ki tamit wax dëgg yàlla li nga bëgg tamit lu gën a baax danga nga caa war a dem ba jeex ca su ko defee nag da ci am loo xam ne ëllëg lu tee nga am leneen la ca toppaat waaye tamit amoo bàyyiwoo tamit kenn xamul loolu lu mu doon la ca des mooy eh, eh, borom daar yi tamit ñu jéem a farlu bu baax ci lu mel noonu ndax sëñ Moustapha wax na ko tajwid bi la yittewoo ba taluñu dara ñu dara gis koo xam da naan da koy wax ne affaire mbind mu ne la man kat mbooleem sama euh, euh, journée bi yëpp li may yor sax ci ñu may tari sax du àgg maanaam xale bi sax aw sas ay sasam du àgg kon mbind du ci xaj xam day ànd ak noonu ba am fa ñetti at ñeent ba mu ko alxuraan tari ji ko te fekk du mën a sax bind dara loo xam ne lu ñuy mën a xam la kon loolu xëy na ñoom tam am nañ te resam sax ñu war a xam ne moom njàng mi ñoo ànd kon war nañ ko utal heure bu nga xam ne ci donte ci semaine bi la wala bis bu nekk tamit ñu fexe ba am xissa boo xam ne day nekk xissa mbind kese kenn ku ne di ca nab nabi na nga ca mane ba keroo nga ca mën a àgg fañ ca war a mën a àgg ndax euh, ndax bu ñu départandoo dem rek du ñàkk ñoo xam ne danañ am loxo bu baax danañ mën a dem a dem ba fi ñu bëgg ñu àgg fa ci mbind ñu war faa mën a àgg kon loolu foofu rek lañ loolu moo koy moom moo koy mën a euh, saafara te defe naa tam concours bi ñu def nii tamit bokkoon na ci li koy saafara ndax ñun fi ñu jaar fi yëpp di waxtaan ak ñoom yitte woon nañ ko lool waaw jigéen yitte nañ woon ko lool xam na ne lii kat wax dëgg yàlla lu am solo la ba kenn ku nekk yaa ngi bàyyi xel ne man dinaa tàmbali bis nekk tey dugal mbind ci sama daara te itam di ko defee li nga xamante ne nii mooy tax ñu mën a àgg fii te dangay ngay da ngay sentir ne euh, mbind mi boo ciy wax sax kenn da gis mu dugg ci biir xolom da koy bëgg am ci cofeel lool nga xam ne kon dañuy xam ne lii cosaan la woon te fi la nekkoon te moom rek lañu am ci bokk na ci li ñuy am li ñu amal suñu bopp kon dañ ko war a saxal dañ ko war a defaraat ba mu jekk te euh, bis dina mën a ñëw rek euh, sëñ Moustapha wax na ko ci biti xëy na duñu fi dégg ay concours alxuraan yu mel noonu euh, ci wàllu mbind ci façon bi kon defe naa laaj Serigne Seck ak ñi ko jàppale ñoom ñoo ko fu njëkk a def waaye mën naa dem ba nga xam ne dana law ba génn ci biti te loolu am nañ ci yaakaar ne faaw dina war a mën a nekk ndax dafa nekk euh, fànn boo xam ne bind dafa nekk fànn bu nga xam ne euh, vraiment day dema dem ba nga xam ne ki koy def bu ci duggee rek dana ci sentir loo nga xam ne dootu bëgg a bàyyeeti waaw dootu bëgg a bàyyeeti euh, moo tax ñu xam ne lii moom doon na loo nga xam ne dinañ gën a gis njëriñ li ci kanam ndax tey wax naa ko sànq am nañ quarante cinquante moins un ci ay ñoo xam ne inscrit nañ juróom fukk yu manqué benn ci ren ci ay jigéen loolu xam naa bu ñu demee ba déwén ba wër fi ñu war a wër yëpp waxtaan ak ñoom te kenn ku nekk tamit la nga wax nga def ko door commencé bind defe naa dinañu am lu ëpp loolu bu soobee yàlla ñu ngi lay sant bu baax di leen bàyyi xel ne mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo encadré daara yu soxna Jaara Buso ca Poroxaan nga xam ne ay maam jaar rek fa nekk di fa mokkal alxuraan mokkal lin wu yéeme ba noppi itam di jàngale bind comme ni ko góor ñi di jàngee Cheikh Moustapha xam naa ci kaddu ñuy àgg ci kaddu yu mujj gi Cheikh Moustapha boo demee ci ko réew yi nga xam ne organiser wu nañ ba seeni ministère lépp lu jëm ci wàllu culture dañ koy doxal ndax munoo wax concours calligraphique am na benn partie ci ci culture Cheikh Moustapha nga dem ci dëkk yooyu boo demee daanaka état bi moo jël li en charge boo ñëwee fii nag ay société privée moo ko jël bu dee lu mel ne bi am na société bu ko jël ña nga cay doxal lañ mën bu dee mbind mi fii société c 3 moo ko jël muy compagnie Serigne seek di ci def la mën jël moyen yeeg déplacé alalam ak déplacé ñu koy jàppaleeg ñoom sëñ Dame Touré ak sëñ Baye Fallou Seck vraiment muy muy charge bu diis ñu yanoo ko ana ban gis-gis nga ci am ak lan nga ciy séntu ëllëg. gis-gis bi ma am ci njàngum alxuraan de manière générale njàngum alxuraan ci réew mi réew mi da koo bëgg euh, xale yi kër goo gis waajur woo gis mébét na doo doomam jàng alxuraan karim ci degré yu wuute rek mais ñoom ñëpp bëgg alxuraan ñoom ñëpp ko jàng ñenn ñi dañuy fab seen doom yóbbu ko ca daara ja mu toog fa di ko jàng ba bam cay pare ñenn ñi fab seen doom yóbbu ko mu di fa xëy suba ak di ñibbi si kër gi ba ci ñuy jàng français sax dañuy seet bis ñu jàngul ak vacances yi ñëw seen doom ñu jàng ñenn ñi di invité sëriñ daara bu ñëw fekk seen kër mu di leen jàngal kon mën naa wax société bi ci boppam mu bëgg alxuraan mu bëgg njàngum alxuraan kon li nga xam ne moom moo jaadu woon ci état boo xam ne dafa yilif société bu mel noonu mooy moo fab ay moyens moyens yi xam-xam ay ay moyens yoo xam ne euh, ay matériel la ngir suqali boobu bëgg-bëgg ngir suqali euh, moomu njàng tey it muy njàng mu am solo parce que du am njàng kese mais njàng la moo dafa ànd ak culture dafa ànd ak pas-pas kon njàng la moo dafa ànd ak culture ànd ak pas-pas pas-pasub diine si waaye pas-pasub moral pas-pasub yar parce que li wax éducation ak encadrement dëgg-dëgg loolu ci daara yi la nekk ndax gis na ñi nga xam ñoo génn ci daara yi niñ taxawoo réew mi ci wàllu liggéey ci wàllu économique kooku production daara la kon daara lan la daara dafay jàngal nit mais daara dafay yar nit mais daara dafay dafay dafay dafay dafay encadrer nit kon loolu li ñuy wax développement facteur de développement bu gën a am importance daara amul ci réew mi kon ni nga xam ne moom lañ fab ay moyens def ko ci école français wares naa fab ay moyens yi def ko ci daara alxuraan parce que yemul képp ci réew mee ko bëgg waaye dafa amit leneen loo xam ne réew mi da ko ci am ci ay njëriñ su boobaa loolu comme activité yi am ci sport am ko ci école française mooy activité culturel comme concours national yi ngay dégg concours yi yi ngay dégg ci ci ci ci ci ci école bi état bi di ko di ko di ko gérer def ci ay moyens di ci encourager euh, sénégalais yi lu mel noonu rek moom moom moomuy concours bi dafa jaadu woon kon ñu jël concours bi moom it def ci ay moyens ngir xam ne concours la boo xam ne nation bi moo ko soxla moo ko jëriñ dafa bokk ci culture am te bokkit li nga xam ne it da koy dundal te di ko yar di ko encadré kooku kon loolu moom lu lu neex a dégg la lu neex a gis la dafa jaaroon ci miss de la culture séq ko ak ministre wala enseignement ah primaire bi ah, ñoom ñaar ñu yor ñu séq lii nga xam ne mooy njàngum alxuraan mi ak concours yi nga xam ne moo ci aju ak bépp activité boo xam ne da koy soqali ñu def ci ay moyens def ci encadrement def ci logistique ah. kooku dafa nekk loo xam ne lu jaadu la mm-hmm. euh, xëy na nag lu nekk ci benn lay commencé mm-hmm. ndax concours yi léegi mi ngi am ci façon xam mësu ne amee euh, ñu ngi ci invité ministres yi ñu ngi ciy ñëw ou bien seen ndaw du ci ñëw mm-hmm. euh, état bi mi ngi recevoir ay xale yoo xam ne dem nañ def concours ci biti am ay ay dikk mu dem recevoir leen sargal xëy na yooyu commencement la yoo xam ne incha allahu dana gën a dem dana gën a law ba nga xam ne lii nga xam ne ñun moom la ñuy séentu di ko mébét ci moyens yi ñu delloo ko ci secteur bi kooku incha allah taala dana mën a am yaakaar nañ ko yaakaar nañ ko xanaa di wëññi ko di di sant yàlla bu baax di sant yàlla bi mu ñu boolee ci ñi nga xam ne ñooy saytu téereem bi ngir mu dem ca kaw ci kanam di sant bu baax it eh, suñu eh, mbokk suñu wëllëri alhaji sëriñ Seck moo ko sëriñ Fàllu mi di ak sëñ Daam mi ak ñi ñu àndal nga xam ne xalaat bi ci ñoom la bàyyi ko ci ñoom la bàyyi ko wañu ko fop ay moyen def ko ci moyen ci wàllu finance ci wàllu logistique Euh, def ko ci tubarkalla ren ji ñu ci troisième édition prix yi ñu def ci ay moyens yu bëree bëri macha allah ngir béggal xale yi ngir encourager xale yi parce que alxuraan di ko fi bay ñaar ko fi bay di ko mokkal ci dënn yi waaye di ko bindit ci këyit gi kon am na ñoo xam ne Euh, ñoom ñu ngi encouragé def ay concours ci wàllu ko mokkal ci dënn yi mokkal gu rafet ñoom it alhamdulilah ñu song waar wi nga xam ne mooy euh, euh, di ko di ko di ko di ko di ko saxal ci mbind mi ci ñaari tànk yooyu la alquran di doxee incha allah ba sax ci kaw suuf kon ñu ngi leen di remercier ñoom bu baax a baax a baax ñaan yàlla mu yokk seen seen seen wërsëg te yokk seen seen tawfiq ñun ñi nga xam ñoo ànd ak noonu commission ci ànd yëpp ci wàllu comité scientifique bi suñu xaalim Ndiaye jiitu ko ak comité yi gis yëpp ci wàllu yëkkale beeg lépp organisation ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñaan suñu borom mi suñu édition bi nga xam mooy troisième bi suñu borom def ci réussite boo xam ne dina weesu yu kawe woon te it def ci ngërëm te def ci nangu te it yokk nu ñëpp kattanu biir ak biti ba nga xam ne suñ demee ci quatrième ba cinquième ba len lu ci nekk di gën a yokk euh, ci wàll yëpp kon maa ngi taxaw la foofu suñu Omar yow di la sant bu baax ci sa taxawaay ci biir liggéey bi rafet na macha allah rafet na jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha Diop jërëjëf jërëjëf di la sant bu baax a baax a baax ñaan yi nga fi ñaanit yàlla na ko suñu borom nangu soxna maam Awa xam naa ñu jox la rek nga tàggatoo sa kàddu gu mujj di am solo di kontaan loolu ci daral bi ñu la daral ak leeral yu am solo yi nga fi leeral. sëriñ bi ñun ñoo gën a bég wax dëgg yàlla ndax euh, lii ngeen ñu jox moom ñu yëg nañ ne wax dëgg yàlla euh, ci suñu xol lañ ko yëgee te wax dëgg yàlla fas nañ ci yéene taxaw. ba li ci bëgg yëpp ngeen am ko euh, waaye may dalal xel ñëpp rek ñi nga xam ne ñoo ci participer euh, tey lañ mu mas fekkee euh, wax dëgg yàlla ni koy doxalee nii waaye ñi ñu fi fekk ñu maîtriser mbir mi la ñu ko xam la ñu ko mën ci yoon la loolu tamit ñu leeral nit ñi xam ko ci suba ba léegi ñu ngi ci di xool première étape bi waaye gis nañ ci ak maandu gu nga xam ne ak taxawaay bu rafet bu nga xam ne ndax dañ ko séddale ñetti commission yoo xam ne commission bu nekk da nga xool jox sa moroom xool jox sa moroom xool te kenn kuy xool ko ne day mel ne kenn kenn xoolu ko ko woon dañ lay jox nga xoolaat kon loolu def naa ne dara ci loo xamante ne lu leer di du ci mën a nekk te loolu mooy tàmbali bi rek euh, gis nañ tamit wax dëgg yàlla ne lu lu lu xaw a luy dang lay doon waaw ndax concours bi indi nañ njëriñ ci nit ñi ba nga xam ne ñu ngi bind nañ bind bu rafet fi mu nekk copie yi ñu yor nii tey nga xam ne eh, juróomi téeméer lay topp daanaka boo ci yëkkati rek danga naan bii de moom xanaa moo dàq moromam kon concours bu serré lay doon boo xam ne dina xaw a metti waaye tamit bu nee concours mooy ñii jiitu da ñëpp danañ baax la sax ñi ëpp dañuy baax la waaye day faaw day am ñi jiitu ak ñoo xam ne duñu mën a àgg foofu ndax mbind yi ñuy jot nii ah li koy firndeel rek na yow yaa ko bind rek mooy nga toog bind ko te doo ko xool fenn ñu jox la daa comme ni mu waxee wax leen la bindal nangam li leen soob ci ñu bind loola ko kon foofa nag fa la ñuy tànnee ci fanweer yooyu nga xam ne mooy fukki jigéen euh, juróom fukk juróomi fukki góor ak juróomi jigéen ci la tànnee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo raw ca final ba waaye dañuy dem ba ca final ba nag ñu soog wax ne ñetti góor ñi ñoo raw ñetti jigéen ñi tam ñoo raw fii waaye du teewul nag ñu xam ne ñëpp duñu mën a dem waaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ndax léeg-léeg jaar fenn ci fi ñu jaaroon doon def tournée bi am ko ne man de déposé woon naa waaye xam naa sama dépo dafa àggut waaw dana àgg sax waaye nag loo xam ne concours la moom konkur ku nekk xam na ko faaw rek ñu bari dinañ baaxle waaye ñi ci gën a baaxle la ñuy mën a jël ñu tamit ñu gën a góorgóorlu pour ëllëg rek waaye lii solo si moom xëy na gañe gi baax na lool am sa xaalis waaw te tubarkaal la xaalis biñ ci teg bi yoon moom macha allah dañ koo gën a yokkaat ndax da leen koo jaral ndax boo duggee ci lu baax gis muy amug yokkute te mu jëm rek ci yàlla te dañuy wax ne laaj Serigne Seck moom doomi daara la euh, kon li muy def xam na ko bëgg na ko mi ci def euh, li mu ci war a def lépp ak euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo ànd ak moom sëriñ Fàllu di rakkam jiitu ci ak daa daam ñi ci des ñëpp kon loolu li ci ëpp solo mooy lii war a sax te nga xam ne dinañ ko dellusiwaat mu saxaat ci réew mi jaar fa mu jaaroon am lu mu indi ëllëg loolu moo ci am solo kon ki nga xam ne gañe na na xam ne moom moo gañe ki nga xam ne gañewut tam na jàpp ne moom tam gañe na parce que day waajaat bu déwénee mu dikkaat rek kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp rek waaw jërëjëf kon mbokk yi li mooy waxtaan wi nga xam ne amaloon nañ leen ko dalaloon ci sëriñ Moustapha Diop Ndar mi nga xam ne moo fi teewal comité scientifique ci góor ñi si njiital sëriñ Khadim Ndiaye waaye dalaloon fi ki nga xam ne it mooy soxna maam Awa Dem ngeen xam ko ci njàngum alxuraan ca daaray soxna Jaara Buso dalaloon fi itam ñi nga xam ne mooy jigéen ñi ci commission scientifique bi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa بنعمة ربك بمجنون